كان كنا فهم نكر نكت تصل دعوة سن برام سبحانه وتعالى من القرآن أك سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أك إجماع الصحابة تواتي جمي تذكر أدنى في خجل تذكر أبدا واتي جمي تفن أم نيو أمون سن واتي جمي تبريو منون جيد يب واتي جمي تب قبيلة أنا أو خير أم نينين يو خمون نتاخير بابو أم نيو يب خاتنا لولا مم نيكا ديزير أكتوالماني لغي برينا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 soko debbe bam koy jelatal kuddu kafe ci huile d'olive mélangé ko lolu nga jël ko diko nettoyer sa souf bi izni rabbi samawati wal ard sha allah soko def emore de takale ko yow bi iznillah bu dee bu def tap 3 yi la bu def 2 ci bir nak soko ko éradiquer ci bir ray hémorroïde bi ci bir soko ko bëggee sungu fu neb-neb sunu fu njàndam touti sungu fu dën